ngeen jëf sama mbokk internautes ya ñu ngi ak le grand champion Mouhamadou Moustapha Sallé alias Fils de Balen Siki moom moo waroon bëre tey journée bi le 17 juillet 2022 moom moo ko waroon bëre si digganteem ak Toubacouta mbër ñoo ngi lay ziar dal na la jaar bu baax général. yaa ngi am bu baax. oui sant nañu baax a baax alhamdulilah. naka yitey. sant rek alhamdulilah. sa adversaire jóge am ci am blessure muy Toubacouta di ko ñaanal mu tane lan nga koy wax ak lan ngay wax mbokk internet yi. waaw di sant yàlla rek di wax ne li moom lu gën la quoi. li gën ñu naan ñëpp la. xëy ni la ko yàlla bëggee woon ñun nag bëggee ma ko woon nii. li tubaab naan l'homme propose Dieu dispose. waaw jaam day bëgg yàlla mooy dogal. xam nga di ko ñaanal tan daal ni la mënoon demee di ko bu baax nekkul suñu noonu xam nga yéen a wuñu ko quoi waaw di ko ñaanal tan bu baax di ko ñaanal tamit xam nga eh, bépp jullit incha allah. mu nekk lu métti quoi préparation combat ku ne xam na ni mu mel da lay téye dina la téye entraînement yi métti na dina la téye nga waroon compétir ci mbapat yi loolu yëpp dootoo dem xam nga bi ñëw demee ni tey dina xaw a métti quoi mais nan la koy gérer. non préparation combat moom na mu mag bi yëpp mbapat rek mhm. la combat combat bu mag quoi. grand combat. voilà xam nga. seen combat gars yi doon ko doon xaar mu doon la def non métti la lu métti la ci ñun ah lu métti la parce que fere nañ li ñu amoon def nañ ko ñu ak lépp da saraxe yëpp daal yëpp pare woon nañ lépp xam nga bay lebaat sax di si daal yàlla xam na ko promoteur bu neexee nga jël ko dama woo di nga laajaat xaalis ci reliquat pour mu joxe ma a fajaat sama soxla xam nga kon préparation combat mu toll fii mu yàqu métti na quoi métti na mais yàlla lu gën la rek lan ngay wax yi ñi lay seetaan supporters a ngi ci contrat ba tey wala Signing ci contrat ci contrat yang ci contrat bat wa maa ngi ci contrat ba tey ci combat bi dama non mo moo waroon nekk combat de l'année quoi moo waroon moo moo waroon dàq ci combat wa mo waron nek ya combat de la parce que gaay dañ ko don xaar amateur yi foko foko posté dañ la koy laaj billahi mais nak sant yalla comme ni wala rek ni ni la ko yalla bëggee quoi ah. di ñaanal tan moom it waaw ñu koy ñaanal tan bu baax baax ndax ndax tuba ko tay eh, kep ku xam xam nga ne neewul mbeur mbër buy tapale non champion la ah, bari na xatar bari na li mais ndaanaan la day yëngal la champion la tax du tapet quoi ah. du ragal xamante nañ xamante ndax ma mo mbeur nañ xam nga kon mu demee nak dëgg la quoi ba blessé lañ ko ñaanu mu tan rek inshallah ba ñëw ak jàmm ñu bëre ak jamm inshallah gis na bi combat bi ya xoo def nga ay sorte yu bëri ci all bi. Euh, ma ñaara final. amna naa jumul ñaari final. ñaari final. Hmm. euh pour tok join ak euh, keroog. Pataar Pataar Sina. démb gisoon nañ la fële. nu mu Mbaling. Mbaling way mais da ngaa mujj ñak j'espère. wa dama ñak waaw. waaw lamb non la nak xam nga. da ngay ñew tay daan suba nga daanu ca hmm bay lancer wa kaolak ban appel nga leen lancé. waa Fass waa Dóoróo say supporters daal. waaw di leen jégalu rek di wax ne bis moom bëggoon mu demee nii bëggoon nañ bëre ba mu neex. bëggal ñëpp ñu taxoon quoi mais ñu la ko bëgg mais ngi ñaanal ñëpp ñoom merci beaucoup jaajëf jaajëf jaajëf.